te ñun la doon liggéeyal te euh, nañ suñu taxawaay. ñuy bàyyi ñii di jàpp ñii parce que ñëpp rek lañ boole tooñ waaw force spéciale sax ñoo tey bu demee élection nii nii nii booy yi tey bu demee élection nii nii nii booy yi gañe ko su toogoon 6 mois 9 mois yooyu muy demandé sax bu ñu demaatee élection ñu gañe ko. ki nar a jël réew mi liggéey rek parce que population bii ma gis ku leen bëgg a jiite ay politique ak i tappale moom jeex na liggéey rek. bu ñuy wax ne ab dëkk doxul. ñu koy wax pour mu jël royukaay ci Sénégal bi nga xamante ni dañoo jàpp ne ak ñaari alternance yu ñu am démocratie bu ñoŋ la malheureusement nag loolu yëpp gis nañu ne Macky Sall yàq na ko ndax euh, yàqoon na ko sax am na lu bëri lu ci dindi woon mais nag décision bu mu jël le 3 février bi passé daf ko gën a yàqati encore donc loolu moo tax te sénégalais yi nga xamante ni souveraineté bi ñoom ñoo ko moom ñu wàcc fii pour wane seen bopp wane ne non seulement li président Macky Sall def ñu ci mais également di ko soññ pour que mu organiser ay lu gën a gaaw Sénégal ñu ah, Sénégalais yi tànn ki nga xamante ne ni moom moo leen doy ñu wooteel ko kooku jël place Macky Sall ñu tourner sa baax am sax le li fa xew pour man révolution la Sénégal nag au lieu que ñuy def révolution boo xamante ni ay militaires jàpp ne ak sunu démocratie fu mu tolloon war nañu mën a yegg ci révolution boobu jaare ko ci ay carte électorale ay carte euh, ñu jàpp ne lii xew nii Sénégal xëy na am na ay lënt-lënt mais fa ñuy mujjee pour ma révolution moo fa am ay militaire jiite ko effectivement militaire sénégalais yi ñooy dem de manière souveraine